jaama ngi jaamu jaama ngi way boromam yow defuloo kenn luy tee muy toog di lañu nar kon tawat bay toog di ko jooytu suñ ko làmbaatoo daji njariñ yaa salaamu jaama ngay jaamu jaama ngay way boroomam te la tuumaal jéggal ñu loolu salaamu jaama ngay jaamu jaama ngay way boroomam bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين بوكي دي بوكي جلتي يب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تكاتنو يالله سبحانه وتعالى أكيم باخم lañu dellu seete ci seen jotaay fa tabaarakallah waxsanul xaaliqin di jotaayal fàttalente delloo sente ak layente biir ñu di ko defee fii ci safina tv ci barab bu tedd di bi ñu duppee bi maulana Cheikh Al haji Umar Al Fuutiyu radiyallahu taala anhu tàmbalee ci nuyoog ziar ci sunu kilifa gu baax gu tedd gi fi di imam El Cerno Hamid Yero Ousmane Bane di ko ziyaar di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla na ko mottalil mboole mi yéeneem ci barab bu màgg bu tedd bu sell bii di nuyoo noonu it sunu directrice madame Gange di Adja ma Ba di ko ziyaar te di ko ñaanalit yàlla subhanahu wa taala mottalil koy yéenéem ci barab bu tedd bi di bu màgg bii ñu duppee ku màgg muy mawlaana cheikh alxaaji Umar al Fuuti radiallahu taala anhu ñu ànde koog dara jàmm ak mayam yete moom ak ki barkeem mu yóbbuñu ba ci darajay mawlaana cheikh abul abbas radiallahu taala anhu darajaam di yëkkatinu yóbbuñu ca darajay maamam sallallahu alayhi wa ñaan yàlla ci mbaaxam mu boole nu nangul bi jaahi muhammadin sallallahu alayhi wa di ñëw rekk ci ni ñu ko tàmbalee fàttalente ci waxtaan ak laayentee ko biir euh, damay faral di wax ni ku bëgg ku mu mën a bëgg mbaa lu mu mën a bëgg mbaa sax fu mu mën a bëgg ki bëgg daal damay wax ni bëggul ki mu bëgg walla bëggul la mu ni moom la bëgg wala bëggul fa mu ne moom la bëgg ku bëgg ku ne yàlla rek nga bëgg xanaa yëgagoo ne kay ni moom nga bëgg waaye sunu borom la jaamam yépp bëgg subhanahu wa taala bokk na ca màndarga yële yéeg loolu ni mel lépp lu la tere nelaw mu nekk sa yitte nga bëgg koo am nga nekk ca di fexeek di yëngook di ñaan ak di fàggu ba yàlla xëy yombalal la loola nga am ko di nga yëg ni du woon lii ak lu mu mën a doon bu dee danga nga toll ci war a takk soxna nga gis koo xam ne yaakaar nga ne boo ko takkee rek moom li nga doon wut ci àdduna ba yàlla dogal mu ñëw di sa soxna di nga yëg ni du woon kii ba ci doom nga di ñaan yàlla di ñaanlu bëgg ko mu teelaa nelaw ba yàlla xëy la may doom sàmmal la ko mu nàmp ba fer ba mën a dem ñëw nga ñaan ko ndox mu may la dinga yëg ni du woon kii ba ci lu mu mën a doon kër nga bëgg mu jafañ la ngay tëcc tëcc ba yàlla dogal kër ñëw sa kër ngi lew na la yaa ko moom lépp ngi ci nga yëg ni du woon lii maanaam lu mu mën a doon daal di nga yëg ni du loola ci ba loola dikkee kon danga nekk ci làmbaatu te dajagoo waaye ku daj dal jaama ngi dale nag ci daj boroomam yal na nu yàlla daj loo boppam subhanahu wa taala ku ko daj rek dal ku ko daj rek dal yàlla na nu dacloo boppam nag gannaaw ba mu yëgloo boppam te nangul nu ko bi jaahi sajidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muy dëppoog la Mawlaaya Ahmed sajidi ba Mawlaaya di sajid Cheikh Ahmed Tidiane si almaktuum radiyallahu taala anhu waxoon ni njobbaxtanu mbég mooy fa mbég yem mbég fa mu yem <clears throat> nee na mooy dem ba yëg ni yàlla subhanahu wa féete woona la ku yëg ni yàlla féete woona la te yàlla la ko yëgalal boppam xamalal la ko boppam nee na foofa lëmbëkk yam yéeg ni yàlla subhanahu wa taala féete woona la yàlla na ko yàlla defal ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola nag bokk na ci li ciy dimbali jaam mu fexe ba dégg yëf yi xamee ca na mu ko waxe woon li ma xuliq na wa kayfa naxya wa ila ayna almasir lu tax yàlla binduñu ak lu ñuy wut ci ci àddina ak ginnaaw fii fan la ñett yi ku fexe ba déggu ko fa tabaarakallah sunul xaaliqin di nga fi amee dund bu yelloog la waraloon yàlla subhanahu wa taala nam ma namam àgg ak yow ci indi la fii mooy ci àdduna bokk na it ca la cay dimbali ab jaam Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktuumu radiyallahu taala wax ni dina la gën a yomb ci boo déggee juróom benn yëf xam ni juróom benn yëf rekk am ñu ko yan ak yan la mu ni fexel ba dégg li may bëgg a wax ñoom rek am ku ko dégg ci la sa àdduna di tabaxoo baax mel na mu war a mel ginnaaw yàlla day jaay àllaaxira te njëkk gamu koy jaay mooy àdduna bu jag ku fexe ba sa àdduna jag nga yóbbul ko yàlla mu jox la àllaaxiraam ba gën subhanahu wa taala te yaa ngi koy gën a mën a jekkoo ba amee lu nu mel ci dégg juróom benn yëf yii ñu ni sayid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiallahu taala anhu mu ni yàlla këram du ñaara ngoog yàlla subhanahu wa taala ak këram du ñaara ngoog nit ak teraangaam du ñeenta ngoog diine ak dee du juróom benn ngoog fexe koo dégg nag <laughs> mu indi jumtukaay ci firil nu nu ñuy déggee juróom benn yëf yooyu la yàlla këram nit ak teraangaam diin ak dee mu ni yàlla subhanahu wa taala mooy buur di boroom bi mata mata mata mat ba amul nawle amul ndend wéeta wéeta wéet soxlawul wéetal ci ëttam waaye mu namm bëgg ku mu waxal namm googu nga xam ne namm naa bëgg ku mu waxal subhanahu wa taala nee na moo ko tax namm bind nit waaye mu ne bëggul bind nit te teralu ko bëggul bind nit te terewu ko te teralu ko teral te namm gi mu namm bind nit mooy namm wàcce ci kaw suuf ku fi doon di xalifaam wuutu ko ci kaw suuf inni jaailun fi fi l ardi xalifatan bëgg ak namm gi mu bëgg bind nit mu wuutu ko ci kaw suuf waaye ne subhanahu wa taala buggul bind nit te teralu ko te juppi teraangaam di jëmu yéen a nit àdduna attanu ko juppi teraangaam àdduna attanu ko <clears throat> te nit war a wàcce ci kaw suuf doon fi di kuutaayam di xalifaam ci kaw suuf waaye teraanga ji mu yéene nit di joppi teraangaam àdduna àttanu ko mu bind këram subhanahu wa taala amal këram jël nag joppi teraangaam jooju nga xam ni nit la ko yéene mu dencal ko nit ca këram soog a bind nit kon ñeent ñaangoog mu des ñaar ñi yàlla këram nit ak teraangaam nekk na di buur di boroom bu wéeta ba amul nen amul nawle di ko yeyoo jaamu wéetoo nguuram ak ëttam waaye amee na namm namm bëgg ku mu waxal bëgg gi mu bëgg ku mu waxal moo ko tax a bind nit waaye bëggul bind nit te teralu ko moo ko taxa amal këram ga nga xam ne fa la teraanga jëmu yéene nit xaj mu dencal ko fa nit teraangaam jooja kon yàlla këram nit ak teraangaam mu des diineeg dee nit nag bu ñëwee doon di xalifa yàlla ci kaw suuf nan la fi mën a melawoo moom nit ba mën a yelloo maanaam mu mérité teraa nga jële ci kër yàlla te yàlla yéene ko ko nan lay mën a melawoo ba mérité teraa nga yàlla ja ca kër yàlla yàlla bind diine amal ko diine ñëw mu yebal yonent ñuy waajal diine jii di ko jug lislaam inna diina inda allahi ngir nit mën a jaar ci diine diine mën a liggéey ci moom ba def ci moom ay jeexital yoo xam ni mooy mën a jur ci nit mu meloo na yàlla bëgg jaamam dina mel diine def ko ci nit ngir nit mën a melawoo noona ba mën a jariñoo mën a yelloo mën a mérité teraanga ja ko yàlla yéene ca këram du diine ngoog waa léegi bu diine pare ci liggéeyam ba nit mérité teraanga ja ko yàlla yéene ca këram ba war koo jariñoo ji mais bu dara desul lu dul dem jariñoo ji teraanga jooje ca kër yàlla mu fekki ko <coughs> fu muy jaar ci la yàlla bindee dee moo tax dee jaarukaay la ci bu diine sottaleeg nit ci liggéeyam ba nit mel na mu war a mel dee mooy jaarukaay bi muy jaar ba mën a fekki teraanga ja ko yàlla subhanahu wa taala yéene ca këram jëriñoo lépp du yàlla këram ngoog nit ak teraangaam diine dee du leer na sëñ Cheikh mi wax lii teg ci ni bi mu demee nii ba mu leer ñu ni juróom benn yëf yi leer na yàlla ak këram nit ak teraangaam diine ak dee nee diine diis de tiis muy ñaari problème yu posé wu te fa inna diina rasulillahi fiihi lana xallul mashakili dunyaha wa ukhraha diine ji yàlla jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy al islam nekk di diine joo xam ni neena na mbooleem problème yi ci àdduna ak mboolem problème ya ca àllaxira nee solution ya nga xam ni ci la problème yooyu di résoudre mu ngi ci biir diine ji di lislaam diine diis demi jaru kay bitis sëñ Cheikh nee benen problème posé wu diine disna na dee tiis na la yërmande sunu borom subhanahu wa taala intervenir melni lu sukk ci sunu kanamu borom moom yërmande yàlla tàllal yàlla ay loxoom ni ko diine mi ak dee mi kenn dong ci mën dara ci sa yërmande yebal ko mu taxawul la ñaar yooyu mooy kan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa kon yërmande yàlla moonu booleeg yonentuk yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax nee na yàlla dem ba sëppu kaw suufam gis ni mu ngi bëgg yàqu te dara naru ko yàq lu dul càggante nit ak tilim yi bon bonam mu sëppooti xool gis ni nit a ngi bëgg alku moom mi mu fi wàcce woon pour mu wóotu ko ca kaw suuf lu ko nar a alak càggante réer boppam ak tilim yi bon bon yàlla subhanahu wa xam ni doonam di ki mu doon <clears throat> di buur bi borom bi yeyoo bi jaamu subhanahu wa doonam di ki mu doon te mooy buur bi di borom bi ëpp na àdduna xëy di yàqoo noonu ndax càggantey nit ak réeree ko boppam nit mi mu fi wàcce woon tamit muy xalifaam moom doonam ji li mu doon di buur bi di boroom di ki mu doon ëpp na nit di fi alkool noonu ci la yërmandeem ji nag mel ni lu soppali ku jëmm sukk ci kanamam ni ko yónnil sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa moo mën ci diine mi diis dara moo mën ci dee mi tiis dara yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw fas yéene taxawul yàlla ba diiné mi diis woyof ci bopp ku yàlla subhaanahu wa namm ci yow sëg njub ku dem ba jub diine dootul diisati ci yow waaye ku jubadi mu diis ci yow war def nag liggéeyam nag ba nga toll ca tolluwaayu ñu jub ñu bu ko defee diine mi diisoon woyof yonent bi taxawoo noonu diine alayhi salaatu wasalaam ba mu woyof ci bopp ku yàlla na ma ci yow sag njub dee mi tiisit yonent bi alayhi salaatu wasalaam taxawu ko ba ba dee nekk di li ñëw nekk tinki di li tinki way jaxle ñi li tinki way jaxle diine wayof ci bop ku yàlla nam ci yow njub de di tinki ñi jaxle ndax kuy laaj lu xew ndax jaxle da nga duggul bammel amma yatasaaluna مع المتسائلين عن النبأ العظيم الذي hum fihi muxtalifun alladi hum fihi muxtalifun kalla sa summa kalla sa na fi zamanin qaribin mel ni yàlla danaan ñii laaj lu xew bu ñu yàkkamti dañu bëgg xam li xew ku dugg bàmmeel rekk xam li xew kon dee mooy tinki ñi jaaxle diine woyof ci bopp ku yàlla subhanahu wa taala ma ci yow sëg njub kon alayhi salaatu wa salaam wàcc na sallallahu alayhi wa sallam wàcc na la Sayid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu anhu waxoon te ni tubaab bu ñuy wax Lamartine moo seedeel loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni yonent bi dee wàcc na alayhi salaatu wassalaam ndax bi ko yàlla yónnee mu ñëw woote wooteeg jaamu gu nu war a jaamu benn yàlla bi te mooy Mawlaana tabaraka wa taala ak wéetal ko sallallahu alayhi wa bàyyi jaamu xërëm yaag caaxaan yaag ya daan diisal nit yépp mu yennee leen wayafalal leen ko jaamoo benn buur bi yeyoo bi jaamu subhanahu wa mu woote ci ngëm gu ni mel ak it ci tolluwaayu jaam yegg ak jaam bi fu ni mel mu nu yonent bi wàcc na Lamartine nee na fexe na ba bi mu ñëwee ñi nangu jàpp ne leen ci loxo ànd ak ñoom moom yonent bi de koti koti yoll yoll ba ca yàlla ni leen yàllaa ngi nii mooy ña gëm wuy sukku te nangu mu ne ñàllank nag tëdd fa ñu tëdd ni duñ fa jóg <laughs> mu ne yonent bi fexe ba jàpp yàlla ci loxo waxin la ak ba ca ñi leen pëkk pëkk ñu ne xifeet xool ko mu ñu leen yàllaa ngi nii jeex na kon nag ku yëgul yàlla xamoo yàlla amul Cheikh Tidiane si nee na nit ku weddi yàlla amul xaw ma ko xaw ma nit ku weddi yàlla waaye nit ku yaree di ko rekk am waaye nit ku weddi yàlla nee na xaw ma ko nit ku yaree di ko nag nee na am na su ko defee nangu googu ngay nangul yàlla nag ak gëm gogu ngay gëm ak nekkam neena du magal yalla de sagal sa bop la waaw ngëm yalla ak nangul ko diko jaamu sagal sa bop la waye kenn mënu ko weddi nax lay nangu yalla diko yeklo nit ci nit ëpp na nit di wëy ëpp na nit di wëy su ko defé nak nit nak fek degul bopam jubowul ak bopam dégg du mën a dégg yàlla du mën xam yàlla la borom xam-xamu tubaab ba wax rek te waxu Seydina Alin karamallahu wacca la interprété noonu le premier acte de civilisation qui revient à l'être humain mooy lan de bien connaître le Créateur mais comme il est très difficile de le connaître, comme on connaît une personne, on peut s'en tenir à se connaître soi-même. Puisque celui qui se fatigue pour le faire pourrait supporter la fatigue de la connaissance étroite d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allahumman, samawati wal مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على النور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم خيتني بو ديلو سيتي تامبالي فوفو نك ووتي بروم بي يالنا نو يالا ديفال ديغ اك توب تي يالنا نو يالا سبحانه وتعالى ماي ني بوك تي جامام يمو سوبال يي بوبام بي جاي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام te yàlla na nu yàlla subhanahu wa taala booleel ca loola ñu mujj ci loxo yonent bi alayhi salaatu wassalaam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jaama ngi jaamu jaama ngi way boroomam yow defuloo kenn luy tee muy toog di lañu nar konta wat bay toog di ko jooytu suñ ko làmbaatoo daji njariñ ya salaamu jaama ngay jaamu way boroomam te la tuumaal jéggal ñu loolu salaamu